ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفهم قولي واجعل كلامي راسدا ومرشدا وفكرة نوير وقلب أرشدا تعصمه بالسنة يخودنا للجنة بهزدية المنة لمخلص المعظم بك جلد بك طالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنا بنو سانتا يالا سونو بروم سبحانه وتعالى di julli ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam no ngi ñaanal bu baax cheikh muhammadul murtala khalifa seigne balla fali mu yag fi lol te wer ak mbollem njabotuk cheikh balla fali gi mu melni ñi ngi taxaw fi ci Touba daru jeng di pak bu sel bu barkel di dekkup sunu jambarja ja seigne balla fali tay ñu jak tay ñu dende ak serigne Cheikh Lo di ndongal tarbiya Lol seigne Balla fali kon seigne Cheikh ñi ngi lay nuyu di la xiar di la jox nga nuyu ak mbokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu euh, sama mbokk yi ma fegol di gaay yu bax yi nga xamne Eh, bala ma nuyu kenn dama leni jital ci nuyo bi ba pare ak seen rafet yi ngeen ni def ci Ndogal TV ca ka nek ca bop ba di serigne Muudu Muudu jeng ak ñi mu ci fegol muy chronicateuram yi ah di ñaan yalla sun borom seen liggéey bi sun borom tawfiixal ko takawel ko lol di nuyu nak bolem sering serigne Balla fali jeng buñ ko waxe ka nek ca bop ba modi Cheikh mohamadul murtada ibnu Seex Balla Faali Jeng ñu di ko nuyu di ko siyaar ak mbooleem njabootug sëriñ Balla Faali Jeng gi di wax ne ñi ngi fii ci Daaru Jeng ji dëkkub sëriñ Balla Faali Jeng äh, tey yamook dimaas di guddig laylatul nabi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëriñ Seex ci nuyoo bu am solo boobu ñi nuyu baax mbooleem ñu nuy topp ci internet bi ci site internet bi jeng Saala TV DSTV fu fun man di nek ci bi rew ak bitim rew rek ñi ngi leen di nuyu waye Serigne Cheikh mu melni ni sunu laaj bu ñeek moy solas gàmmu manam moy lan Manam gamu lan mooy lay ni Aw serigne bu tedd bi ci tontu yoyu moy li waral gamu moy gàmm buñ ko waxee baatub gàmm ci boppam li muy tegtale mooy dundal guddik yónnente bi sallallahu taala alayhi wa salama gàmm nag suñ ko waxee kenn du fàtte sunu yaakaar Seex Ahmadou Bamba Xaadim resul ni nga xam ne moom la daan dundale gàmmu ci fii ñu nekk muy senegal réew mi ñu gën ko cee xam te mooy guddik mawlid sallallahu alayhi wa salam bu ñu waxee guddik mawlid nag mooy guddi gàmm mooy guddi ganeek yonente bi salallaahu taala alayhi wa salama ba tax buñ waxee lan mooy solos gàmm gàmm mooy loo xam ne mboolem ñi jiitu woon dañ ko doon màggal waaye rawatina kii nga xam ne mooy sunu yaakaar di seex Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax wax na ne mi ngi ko njëkk a màggal ci ihyaytu mawlidi ama ak sasin la wax kon njëkk na koo màggal ci ak sas kon lu yàgg la waaye buñ dikkee ci lan mooy solos gàmmu ak lan moo waral li ñu dajale fii di gàmm mooy kenn du fàtte sunu jàmbaar ja sëriñ Balla Faali waaye kenn du fàtte sunu jàmbaar ja sëñ Abdou Balla Faali waaye kenn du fàtte tamit sunu jàmbaar ja Cheikh Mouhamadou Jeng Balla Faali waaye kenn du fàtte sëriñ Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Balla Faali Jeng tey ñu koy dundal fii ci Daaru Jeng nag guddi gamu nak comme ni ngeen ko gisee ni nga xamne biñ xeye ci suba wacce nan alquran manam jang fi ay khasida def salatu ala nabi julli ci yonente bi wacce fi ay kamil yu bare bare ah buñ waxe gamu nak gamu moy ah tuddu yalla jang alquran jang khasaid te yakarna ko gis dekk bi ni mu melni ban xeye ci suba ba legi ci loolu la nek moy jang alquran ak jang khasaid ak tuddu yalla té loolu moy gam waye buñ waxé deug deug nak li nga xamné ne waral moy dañ ci am ndigal ci ko tedd gi muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ginaaw ban ci amé ndigal mbolém jabotou Serigne Balla Fally Dieng gi fi massa jaar ah la dalé ci Serigne Balla Fally ba ci kifi nekkal Cheikh eh, Serigne Balla Fally di Cheikh Mouhamadul Murtada ah jaar ci magam yu bax ya muy Cheikh Mouhamadou Dieng ba ci Cheikh Karim ñom ñëpp ni lañ ko doon dundalé muy guddi gamu gi té moy bernde ah dundal ay ñam togg ay ñam joxe mbooleem ku fi ñëw ci suba ba léegi gis nga ban xëyee ba tey ci li nekk mooy togg bernde joxe ay ñam comme ni nga xamee ne Serigne Touba noonu la ko diglee woon wax ne képp koo xam ne day guddi gàmm dundal nga ko wax ne mawlida ul muazzamu mubarakun muhtaramu tahsima o yan atimu ala sawi taxadumi mu mel ne dafa dañoo mag ñooñu dañoo déggan kan mooy sëñ Touba waaye buñ ko waxee mooy danga nga cey mën a génnee Serigne Balla Fally ak njabootam mawlida ul bu buñ ko waxee mu mubarakun muhtaramu tasima yanaati mu alaa sawi taxadu bi kon dafa war ci ñooñu mag ñi dañoo déggan lan mooy bayit Sëñ Touba mooy dafa war kon ñuy màggal guddi yónnente bi ci képp koo xam ne da ngaa jiitu woon gis nga mag ñi ni dégg woon euh, bayiti Sëñ Touba yooyu nga gis ne Serigne Touba indi na ci ay mox ji say yu bëree bari bëri ci yónnente bi sallallahu taala alayhi wa nga gis ne ma nga doon wax sax ci xasidaam googe ne sata a wulida xayru nabiyun xat sala alay imam ada fuhada bil ikami nurun asimun xadira bi i xusuuru xaysara man kaana fi umil xura makkata xayral urami nee na yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam daal keroog ba nga xamee ne gane na jamono mbooleem ña nga xam ne ñoo doonoon ay iwanu kisra mooy ña nga xam ne ay buur lañ woon mbooleem doon xiram aka def lépp ci guddi googee keroog suñ borom màbb na seen yooyu yëpp waye neena na leer la go xamne asimun dafa jolle khadira go xamne def nako gis khusurun muy wéy khaysara ba bil khaysar te moy palais bobé nga xamne mo nekkan ci rom wax nañ ne kérok bi nga xamne yonnante bi sallallahu taala alayhi wasallam ganena jamono mbollem li wër Makka mo xam sam la mo xam Faris la dañoo yëg ne yónnente bi sallallahu taala alayhi wasallam ganena jamono ci guddi googee moo tax sëñ Tuubaa du mom buy waxe ci ay beuyitam da ngay gis ne day firnde ne yonent bi sallallahu taala alayhi wasallam sallam yemul ak dara motax mu daan wax ne ihyaytu mawlidi ama ak sasin mom kon bam koy magal yag na lol waye nak buñ deme ci ay mbindam it dinañ ca gis muy wax ne laylatu mawlidi nabi laylatu mawiri yabi bi laylatu ma bi wa tuhrisi tahasumi guddigo ge dal muy guddigo xamne xam farbakar la waye moy guddigo xamne nak nit dañe na ci ci coono ba ba ila yawmi dini wa toxri si taxasumi ci la nit dañe ci bàkkaar ba faawu mawlid ul muassamu mubarakun muhtaramu tahsimu u yanatimu ala sawi taqadumi tahsimu u bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadul minnatin li muxlisin muassami wax ne guddig yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam ku ko dundal ci sunna wax ne day ajjana mooy sa kër kon dañ dégg ne dundal gi mo war waye tek ko ci sunna waye selal ko kon da ngay gis na tamit mawlida u musarrafi malam bi khayri sarrafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman adar yawma unayni was sabr wa yawma ma badrin wa nasr khayral wara mufa'ami neena kep ko xamne da nga jël sa deureum def ko ci goudi gàmmu neena ñoñe don xare badar mel nga ne keroog ku fekke seen jëf yoyé te bu ëllëgé yowmal xiyaam Serigne Touba moy wax neena dinañ la fay jëf yu tol noonu kon lu mata lu mata bàyyi xel la kon dañ ci gisé ne Serigne Touba ay muhjisatam ci yonnentibi sallallahu taala alayhi wa lu am solo la waye bo yere xasidaam goge da ngay gis ne melay yonnentibi rek la tay don jàngale don na wax ne tamit fa kullu man khat adara mawlida wa afdalil wara mu'azziman mubasira bi sukkarin aw laxami neena kep ko xamne da nga tew ci ca guddig yonent bi taala alayhi wa joxe ci ay ñam wala nga joxe ci xet lu mu meena don su ëllëgé day fala yu asabun khada indal isabil mufhamil kenn du la isaab bu ëllëgee yow mal xiyaam loolu boo demee ci gudd euh, gu euh, maanaam jës bul xulóob ko ca fekk Serigne tubaa di ko wara waaye nag ba muy wax meloom ya daf ne daf ne wa huwa akmalul wara xulxan wa xalxan saxara wa mislu xattu lan yura walan yura fi siyam yi da ngay dégg ne Serigne Touba daf ne yónnente bi salallaahu taala alayhi wa sallam ciw melokaanam dootoo gis mukk yàlla bindati ku ni mel ci kaw suuf nee na ci ay melo moo xam ci jikko la moo xam ci loon mën a doon nee na yonente bi salallaahu taala alayhi wa sallam moo ci gën a mat ñëpp wa huwa akmalul wara xulxan wa xalqan saxara wa mislu xattan wa mislu xattu lan yura walan yura fi siyami nee na tamit dootoo gis mukk ku mel ne moom ci ay jikko kon da ngay gis ne Serigne Touba ku joxoon gëdd yonente bi salallaahu taala alayhi wa sallam moom la jërëjëf Serigne Cheikh ci question bu njëkk bi am na solo mu mel ni mhm. ni ko faram fàccee leer na mhm. jàng ci mbindi ku tedd gi Cheikhul Khadim mhm, mhm. muy wax ci jasbul xulóom ne mhm. taasimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiya dul minnati li moxlasil muasami ku ko ku màggal guddig yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga dundal ko ci sunna mu mel ni gàmmu gi yàgg nañ koo teewe fi waaye ci sunna lan koy dundalee maanaam solos bis bi ak lan mooy taarixu defe ko fii ci Daaru Jeng ak ndigal li fan la bàyyi koo ak kan moo ko njëkk a woote ak ci nan la ko wootee ak bam ko fi bàyyee ak léegi nan la ko taalibe yi di doxale waaw euh, sëriñ bi jëf ci question bi nga ma laaj am na solo lool muy boo gisee ma la ko doon wax mooy ndigal li mi ngi bàyyi ko ci euh, euh, sëriñ Balla Faly Dieng mi nga xam ne moo fi euh, nekkan euh, te xalifaam njëkkan fi di sëñ Abdou Dieng Balla Fally gisan nan ne euh, sëñ Abdou Dieng Balla Fally moomee daana màggal gam te moo njëkka doon xalifaab sëñ Balla Fally Dieng te nam ko doon màggale tamit dundale tamit mooy mbooleem foo xam ne ab taalu bi dafaa nekk moo xam dëkkandoo nga moo xam kum mën a doon da ko doon woote fii ci Daaru Dieng ak ànd koog dongay tarbiye yi nga xam ne ñoo njëkk a jaar ci daara ji buñ ca tuddee ku mel ne Serigne Saliou jeng dinañ ko mën a ràññee la ak mbooleem ak euh, ku mel ne Baye Talla sàll ak mag ña ko jiitu woon ci magi taalibe yi nga xam ne buñ masaa ñëw fii mbooleem koo xam ne Touba nga dëkk wala nga bàyyi ko ci gox yi moo xam foo mën a jóge ci réew mi wala bitim réew fii ngay ñëw dundale ko fi mu wootee ko fi ñun ñun ñëpp ñu daje fi di ay taalubeem ñu dundal fi guddig yónnente bi salallaahu taala alayhi wa waaye nag buñ ko dee wax mooy ñett a jiitu nag daa bokk ak dongay tarbiya yi nga xam ne ñoom bokk nañ ci ñi ko sos ba mu yegg si fii waaye boo gisee moom nam ko doon dundale mooy na ko Serigne Touba doon dundale mooy euh, jàng alquran salaatu ala nabi ak bernde ak euh, teral jaami yàlla yi boo gisee ba sun jonni tey jii ñi fi nekk ay xalifa yi Serigne Balla Fally yëpp ka ca dale ca sëñ Abdou Balla Fally ba ca euh, sëñ Abdou Karim Dieng Balla Fally ba ca Cheikh Mouhamadou Dieng Balla Fally ba ca Cheikh Mouhamadoul Mourtada mii noonu la koy dundalee nga xam ne boo gisee amna beni yokute tebu bu reey reey reey bo xamne amna na ci nga gis ne loolu day woné na mbirum sëñ Touba kanam rek lay jëm lolé mu waxane darajatul satan khafit wa man na aminal war a xaf di xufit loolu moo dellu ci bisu gamu bi bo gisé mbolo mi daje fi ñepp daje fi ñu diko dundalé dundale ay junni junni nit di fi daje euh, di magal ci ndigalu Serigne Balla fali jeng lolou ak xalifaam bi fi nek di Cheikh Mouhamadoul murtada and ko mbokam yi ko wër yëpp nak ñukoy dundalé dundale ci daru jeng lii nga gis nii daal mooy gàmm mooy teg ko ci sunna na euh, ak ak ak jaamu yàlla ak ak ak tudd ko ak sikkar ko ak joxe ay ñam moom la fi mboolem magam yu baax yi fi jaaran doon def moom it ca la nekk ba fii may waxee ak yow. jërëjëf jërëjëf Serigne mu mel ni ñaareelu question bi leer na mhm. mu mel ni kon ndigal la muy laata fanloo shay an bi mhm. xayri isni mhm. fal ismu chat un fii xabooli chaani te sëriñ Bay Jaxate ne lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ lu bëgg nit ba fab njariñ jox ko te topp ndigalam soo bëggatee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam mu mel ni kon da koy dundal ngir màggal guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye ngeen teg ko ci ndigal waaye Serigne Cheikh mu mel ni dëkk bii Serigne Balla Faali moo ko sancoon wax li sëñ Moussa Ka naan mu sanc këram ah, mu sañc daaru ah, ni ko sëñ Moussa Ka waxe ci way ñu tuddee ko romb leen ko bu leen ko laale bu leen ko laale mhm. waaw waaw sanc këram ga di sikkar waaw ñu ro ñu romb ko naa bu leen ko laale waaw waaw mhm. waaye mu mel ni lépp rek mhm. moom dafa tegoon ci ndigal mhm. ci jàmbaaram ja di Cheikhul Khadim waaye mu mel ni sëriñ bi bi mu fi sancee am na ay dëkk yu ko wër ba ci biir dëkk bi am na ay daaree tarbiye maanaam diggante sëriñ Balla Faali ak tarbiye maanaam euh, lan la maanaam lan mooy cosaan buñ waaw maanaam ba suñ jonni yàlla tey mhm. na sëñ Balla daan tarbiya ak Cheikh Abdou Dieng mhm. Mhm. ndax tarbiya googu mooy dox ba léegi ndax miin nañ ci ndongal daaru nekk ci daara ji ba sëriñ bi pare ci moom jox ko ngërëm waaye boole kook soxna ak ya ca aju yëpp mu yóbbaale këram nga xam ne bu demee day soppi ab liggéey maanaam diggante sëñ Balla Fally ak tarbiya maanaam mooy lan sëñ Cheikh maanaam bu waxee diggante sëñ Balla Fally Dieng ak tarbiya dana yomba farafànce ndax euh, ku gis tarbiya ak seigne Balla fali Dieng ni seigne Touba dan tarbiya ku ne xam na ko mooy jamono bi nga xamee ne suñu borom mi ngi koy yanam bu bobu wax ne nak rabbi ashabaka bil imma wala turabbi bi darsi faqat kon melna sering ne Serigne Touba ci jëmmi bopam yonnate bi sallallahu taala alayhi wasallam moko moo wax ko ne ko nak sa ñooñ kat bu len yar rek ci jang kese waye na nga len yar ci tarbiya te tarbiya mooy itte ju kawe al imma mhm. mooy boole liggéey ak jàng ak jaamu yàlla mu mel ne loolu moo tënk lislaam moo tax mhm. moo tax Serigne Touba nag bi nga xamee ne jóg na woote wooteem bu rëy boobu mhm. bokk na ca ña ko wuy ji woon muy sëriñ Balla Fally Dieng ma ngi ko fekk Daaru Salaam Daaru Salaam la jébbuloo ci moom jàmbaar jooju nag bu ndee ko wax ci tarbiya saa boo ko tuddee ci yoonu murit ñëpp dinañ xam kan mooy sëñ Balla Fally te dégg nañ ci taarix ak histoire yu nettali yu bëree bëri bëri te loolu lu wér la wax nañ ne euh, ku tedd ki bi demee ba nga xam ne amul jotug defare mhm. moom lan masa dégg ci moom mu wax Serigne Balla Faly Dieng ne ko ne ne fere yëpp day wala mbooleem ña fa nekkan ne leen Balla Faly day defar naa ko aw ma jotug defare waaye defar naa ko ba ko dem ca moom dina la defar loolu yaakaar naa dégg nañ xalifa yu bari di ko wax di ko nettali ba kii sëñ Saliou radiyallahu ko wax waye tamit mu am tawfiq ci seigne Touba moy buñ tuddé tarbiya bo gisé euh mi ngi yoron juroom luy tolok euh, ñenti dara waye dem na ba dara tarbiya mat juroom benn dara, nga xamné man mi di wax ak yow ca dara yoyé jaar ca ak junni jun sama junni junni morom yo xamné ca lañ tarbiya wo ba wacc waye ci lim leen daan yar moy jang alquran ak liggéey ak jaamu yalla mu melni seigne Touba defal nako ak jaglé ci tarbiya ba ni may waxé ak yow bo tuddé tarbiya ci yoonu murit sa ci ki muy njëkk daj mooy Serigne Balla Fally Dieng mu wàcce ay góor yàlla yu baree baree baree bari nag yoo xam ne kenn mënu leen a lim takkal leen ay soxna defal leen mbooleem la ca war ba mbooleem xalifaam yii fi jaar ci noonu lañ doon doxee kon bu buñ waxee mbiru tarbiya dangay xam ne Serigne Balla Fally euh, am na ak jagle bu wér a ci tarbiya kon na ko Serigne Touba doon defee ba sun jonni ji may waxee ak yow ca yoon woowee la nekk wàcc ko. jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh mu mel ni. Euh, kàddu yi leer na am na solo mm-hmm. mu mel ni sëriñ Balla Fally rek lan dégg ci sëriñ Touba mu ne mm-hmm. defar taqoo mm-hmm. te ma jot daan ne demal ca Balla Fally mu defar la kon ak defar moom waa kër sëñ Balla Fally ñoo ko moom ba ci sëñ Saliou daan na wax naan waa kër sëñ Balla Fall defar ga ga defar ga sëñ Touba ne woon Balla Fall de am na ko mhm. defar googu yàlla nañ ci bokk mhm. mu mel ni defar googu mhm. ñu bari bokk nañ ci kon ñu ngi nuyu bu baax mbooleem fu waay man di nekk di ñu bàyyi xel ci site internet bi di DSTV Dieng Saala di ñaan ñuy abonné tey partagé ngir ne ñom kat lu mm. bax rek mo len yo ñoro mm-hmm. mm-hmm. ndax site yi bari nan uh-huh. ku ci nek yaangi nek ci internet bi di di say vie mm-hmm. ci lo xam ne du lu bax ndax képp ko xam ne da ngay tasaare ab safan maanaam na la wér mom moom do ci ca génn waaye képp kuy def lu bax suñu borom la koy fulal kon seigne Cheikh ci yi leer na am solo ku dégg ni nga yar nan la jangal nan la tayit def nan ci lu rëy kon ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal suñu borom defal la taw barkeel ni nafa iblisa fi bahri mayomba DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko sa notification bi mooy tax vidéo bu dugal rek nga mën cee ju leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf ni nafa iblisa fi bahri mayomba